فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk آه، القرآن السنة sunna ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan borom bi tabaraka wa ba keroog ñu dajee ak moom euh, vidéo bi nga xam ne moom la ñu dugal ki ci wax doon koo xam ne ku ñu xam la euh, mu am ay point yoo xam ne wax na ko ci yoo xam ne yu ajo jàngat la ak indi ci ak leeral euh, ndax mu bañ a bàyyi benn lënt ci jullit boo xam ne euh, déglu na wax yi nga xam ne moom moo fi nekk li ajo leeral nag ci vidéo bi bari na waaye dañ ciy tànn yenn rek euh, yi ca des ñu daal di ko jéggi ngir ne leer goo xam ne leer na ko ak ñàkk wéram di fàttali rek ne ki nga xam ne mooy wax ci vidéo bi euh, boo càmbaree waxi démbam ak waxi teyam dangay ngay fekk mu am ak wuute lool ndax amoon na ab diir waxam moo doon alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ñu dem ba ñu gis ko muy am fu muy far di am kuréel bu muy askanoo di soppi waxi démbam di wax yeneen wax yoo xam ne yu bees la ah loola nag daf ñuy fàttali rekk asar boobu nga xam ne euh, boroomi téere xadiis yu bari génne nañu ko bokk na ci نسائي في سنن الكبرى بغوي في شرح السنة آه البيهقي ممتم جنن نكو آه نينن يباري باري باري نيو جلي كو تي آه ابو مسعود الانصاري mu ne bis dafa dugg ci xudayfa radiyallahu anhu daa di xudayfa ne ko ihad ilayya ne ko dama bëggoon ga jox ma ab bàttale ab ndénkaane fa qaala lahu alam yatika al yaqin mu ne ko ah xanaa lu leer naññi dalaa dikkalut ba amatoo sikki sàkka qaala bala mu ne ko ah كي ديكال نمو عزة ربي واتنا كوشي تيد دنغي اسمو بروم قال حذيفة نيكو فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف منيكو يقلني رير بيبو غرير موي ngay xam loo xam ne démb danga ko doon sip di ko dàq maanaam ngay nangu loo xam ne ci diina démb danga ko doon bañ waaye tam ngay bañ ci diina loo xam ne démb danga ko doon nangu mu ne ko wa iyaaka wa talawun maa ngi lay dénk nga wattandeku bari ay melokaan di soppeeku ci diina yàlla ni mu la neexee bu teyee ngay wax lii bu ëllëgee ngay wax lee waaw loolu nanga ko wattandeku daa di ko ne fa inna diina allahi yëgal ne diina yàlla ji benn la kon nag wax dëgg yàlla euh, gis koo xam ne da daan taxaw démbu naan lii xutbu la kii xawsu la kii nuqabaau la kii nujabaau la yépp dara wéru ci ne Cheikh Albani nee na xadis yépp dara wéru ci ñu demaat ba ëllëg ñu gis la la nga doon bañ noona démbu nga mujj di ko nangu waaye ka nga doon wax ci moom ne moo daifal xadis yooya ngay wax dontu ne ay boroomi xam-xam jiitu nañ ko ci nga ñëw tey xëy di wax ci moom ay wax yoo xam ne yu doy waar la loolu talawun gi xudayfa radiallahu anhu doon tere la shakka ne li buntu la ci buntu yooyu euh, beneen tomb bi mooy ci biir bi مؤسكني في الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ندف وحني كجانغ فقه تجانغو تصوف ولا كجانغ تصوف تجانغو فقه ندف نانغم نانغم الإمام مالك وخرنا بيقني ومن تفقها ولم يتصوف فقد تزندقه ويه ومن تصوفه ولم يتفقه من فاقوكه فقد تفسقه ومن جمعهما فقد تحققه الصوفيزمو دفير فتل عبادات دفير فتل آه، جامو يلا من الوخ جوجو طالب إمام مالكي يجمعنا وانت وان أقموم جانجي كموم كن سنيوم صلو وخ جوجو moo tax doo ko fekk ci seen téere yi wax jooju amulub sanat bu yegg ci imaam Malik fu ñu naan xaddadanaa diw xaddadanaa diw ba wax ji yegg ci imaam Malik amut benn sanat amu ko bu dem ci imaam Malik rahimahullahu taala wax la joo xam ne ay nit ko kereye rek di ko askane imaam Malik te lii firndeel ne loolu du waxu imaam Malik mooy imaam Malik dañoo solo ci moom ci sanat boo xam ne bu dëgër la ci wax joo xam ne ju wér la soo demee ci eh, al madarik wala tartibul madarik eh, bu qaadi Iyaad rahimahullahu taala dan nga ko fa fekk waaye da ko fekk sax si yeneen téere yi imaam Malik daam waaju ñëw ne ko ñun de fa ñu nekk ca nasibiin daam ay nit ñu fa nekk ñoo xam ne dañuy daje bu ñu dajee togg ay lekk lekk ba suur naan ba màndi daa di commencé nag di wëy seeni wëy bu ñuy wëy ba mu yàgg ñuy fecc imaam Malik ne ko ndax ñoom ñooña xale lañ mu ne ko deret bal maahum liha mu ne ko ñooña kay duñu xale ndax ñu nga amee sikki ñu rëy mu ne ko amajaaniina hum est-ce que ñoom dañoo dof mu ne ko déedéet ñoo ña kay dofuñu mu ne mosumaa dégg mosumaa ci biir lislaam aw nit woo xam ne dañuy daje di def lu mel nii kon mbokk yi imaam Maalik a ngi noonu ŋàññi li nga xam ne waa tasawuf dañ koy def te tasawuf dañoo réglementé fecc boo ko bëggee xam demal ci téere bii di ihyaau ulumuddin bu Ghazali da nga fay fekk ne tasawuf dañoo réglementé fecc daganal ko boole ko sax ci yi nga xam ne dañ koy jaamoo yàlla subhanahu wa taala ba di ko jéem a utal aw lay te la shakka ne amul lay te du mën a am lay ila yawmi diin kon imam malik rahimahullahu taala li ñu solo ci moom moy ngagne tasawuf way solo wuñ ben yon ci mom muy tag tasawuf wala wa tasawuf wala mu len di yëkkati wala muy wax joxoñ ca imam malik mo dan wax ne man zaama anna fi lislami bid'atan hasana faqad zaama bi anna muhammadan xaana risala imam malik mo dan wax ne ku jàpp ne l'islam bida bu rafet da ci am ne da nga jàpp ne yuntu yàlla muhammad alayhi salatu wassalam leetar bi ko yàlla joxoon leetar booba da koo wor ndax yàlla moo wax ne ko yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayk wa in lam tafal fa ma risalata yalla ko ne yow yonent li ma la yónni jottali ko yëpp ne leer naññ soo defut kon xamal ne la taxoon ma yónni la kon matoko te xam ngeen ne yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam la taxoon yàlla yónni ko mat na ko ndax jottali ba taxaw ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim na leen hal balaxtu ndax jottali naa saxaaba yëpp ne waawaw jottali nga mu daadi junji baaraamam ba ca kaw daadi ne allahumma fashhad yàlla seedal ne ñi ngi ma yónni woon ñu ngi nii taxaw laaj naa leen ndax jottali naa ñoom ñëpp nee nañ ma jottali nga kon imaam Malik euh, amul benn asar boo xam ne bu wér la boo xam ne da ciy tagg tasawuf wala mu muy wax naan ku jàngut tasawuf nangam nangam parce que xam nañ ne Imam Malik ci boppam nekku doon ci tasawuf waaye ku sori woon li waa tasawuf doon def la. Euh, leneen li nga xam ne wala ñetteeli toom bi nga xam ne moom la ñuy taxaw mooy euh, li mu ne alwahabiya alwahabiya rahimallahu cheikha muhammadan ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dafay laajte ci wàllu tawassul ndax bi maanaam jottaliku ndax ci lu lu islaam lu ñu nangu la ci islaam te tamit bu fekkee ne waaw naka lañ koy defee xam naa ne ki laaj laaj yooyu wahabi la ndax wahabisme maa ngi yore sax risalatu tawxid bu Mouhamad Abdoul Wahab nga xam moo moo sos wahabisme ñoom dañoo dàq tawassul yàlla yàlla nañ ma may ci barkeb diw wala ci yi diw donte yenent bi la ñoom wahabisme ñoom ñëpp dañ ko dàq ñoom nag léegi dañoo daanu ndax la ñu yaakaaroon di ko def mooy wahabisme te makk moo doon cosaan la gannaaw gi pakistan yi jël ko ñoom dañoo daanu léegi ci àddina si parce que bu makk ba dafa xëy ne ñun ci ay caaxaan la ñu nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo fii màggee fii di arab nu moom ko ah, bu juddoom jote ñëpp jóg di ko màggal di fàttali ab juddoom ñu ni ñu toog naan bidaa la dal di décréter ne ren fu Arabie Saoudite dëkk bu nekk danañ fa gàmm daañ ko def alim bu koy weddi nag ni ñëw fii maag moom ñu discuter ñu seet moo tax wahabisme dafa daanu léegi waaw ñoom nag ñoo doon bay bañ bi jaay nangam ak nangam nangam ñoo ko doon bañ waaye ndax tawassulu bi jaay yi fa inna jaay yi inda llahi azim boobu imaamul albani da ko dàq ne hadis bi wérul waaye kan mooy albani Hmm. albani dugut école jàngewut ci benn école hmm. génnewut ci benn université horloger hmm. bu daan def ay montre la mu am jot <laughs> di liir di liir di liir ba yàgg rek mu xëy tuddee boppam xaafis ñu naan imaamul albani mu jël hadis yëpp ci ne mu ne wérut indiwaat yeneen moo tax soo jeey mujj nañ ñoom ñoo ko ngemboon rek ñoom wahabiste yi waaye dañu mujj ñoom itam taalifaat ci moom tuddee ko tanaqudatil albaani loolu la kon nag tawassul ah nit ñi dañ cee wuute rek am na ñu ne yàlla mën naa maye sans mu jaar ci kenn ñu ma may bi jaay nabi wala bi jaay diw wala bi jaay diw am na ñu dem ba teg ko shirku waaye am na ñoo xam ne nangu nañu ko ndax Euh, am nañ ci ay hadis yi may wax nag jànkat yi rek ñoo ñoo ñoom la concerné am na am na ci ay hadis yoo xam ne tey dafay wane ne euh, tawassul ci nit dagan na baax na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn Xattaab daf ne ko damay omra ji mu ne Omar boo demee nga ñaanal ma fa hadis boobu wér na fii de damay ñaanal Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala lu tax dafa bokk ci masailul jaahiliya bu mu bind da ca indi ne bokk na ci yéeféer yi seeni melokaan mooy talqiibu ahlil xaqi bi alqaabin sayyi di wooye ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëgg ay tur yoo xam ne yu ñaaw la yoo xam ne ñoom ñoo ko kéréel seen bopp di leen ko wooye luñ ci jublu tanfiiran linnaasi an il xaq ngir dawloo nit ñi dëgg gi nga xam ne moom la ñooñ dëgg ame ñu créer leen ay tur di leen ko wooye loolu nag waa bidaa dañ koo jël ci ñoom ba noppi di ko jëfandikoo muy méthode ci seeni méthode yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir fexe ba dox ni diggante nit ñi ak dëgg xam nga bëgg wujj yi moo yóbboo nit ki lu ne yow da ngaa créer dara wala sab sëriñ créer dara ngeen tuddee ko turu seen sëriñ walla fami seen sëriñ te xam nga ne lislaam ba mu ñëwee yii muy woote woo rek ibadallahi wala almuslimuuna wala almuminuun yéen ngeen keree dara ba noppi askane ko seenub sëriñ ñeneen ñëw ni yéen it keree dara askane seenub sëriñ ñeneen ñëw ni yéen dara askane ko seenub sëriñ ngeen xëy gis aw nit woo xam ne ñoom daneñ ñun de askanoo ci kenn wala ci benn yoon wala ci benn sëriñ su ngeen ñu laajee daal kan mooy suñ sëriñ mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam kan ngeen di roy ci diina mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam fan mooy masdaru seen diina maanaam référence fan ngeen koy jëlee ñu ne mooy alquran mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ah lii kat buñ ko fi bàyyee kon dana tax ñu baree bari dem si ñoom ndax jullit boo xam ne boo ko ne kan mooy sa sëriñ mu ne la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fan ngay jëlee sa diina mu ne ci alquran ak sunna ak la nga xam ne salaf di mag ñu baax ña salaj nekkoon loola kat dafa rafet lool te neex a dégg ci ay nopp ñu nekkoon kat nañ seet nu ñu leen di wooye ñii di leen wooyee alwahabiya bokk na ci mooy tur yi nga xam ne dégg nañ ko ci euh, vidéo bi waaye bi mu tuddee alwahaabiya mu wax ñaari wax yoo xam ne yu doy waar la nee na alwahaabiya dañuy dàq tawassul waaw léegi su fekkee alwahaabiya comme moom ni mu ko waxee Muhammad ibn Abdul moo ko indi su fekkee ne loolu la law faradna jadalan ne Muhammad ibn Abdul Wahab moo indi alwahaabiya ndax kon dàq tawassul si Muhammad ibn Abdul Wahab la jógee wala ci pisi jamonoom rek la fi dàq tawasul nekkee ahlu sunnati wal jamaa tawasul bi ñuy dàq mooy at tawasulul bid'i tawasulu bidaa tawasulu bidaa pour ñu xam ko il faut ñu xam tawasulu shar'i wala tawasulul mashru maanaam tawasul bi nga xam ne yoonal nañ ko mooy julit bi def tawasul ci turi borom bi tabaraka wa wala ci ay melokaanam loolu dañ fay tawasule rabbana innana amanna wala lu mel ni nga ne ya allah ya rahman ya rahim irhamni nga def tawasul ci turu yàlla yi subhanahu wa taala wala ci benn melokaan ci melokaanam allahuma bi ilmika alxayb wa bi qudratika ala alxalq loolu yëpp melokaanu suñ borom la tabaraka wa taala yee ay turam la kon benn tawasul a ngi noonu beneen tawasul mooy nga def tawasul ci amal saalix jëf ju baax yoo xam ne yow yaa ko jëf nga def ci tawasul ñaane ci yàlla subhanahu wa taala lu mel ni asxaabul gaar la ñu defoon kee dafa ñaan yàlla ci taxawee gu mu taxawee way juróom kee ñaan yàlla ci matal gu mu matal kóllëre kee ñaan yàlla ci ragal gu mu ragal yàlla ba bàyyi loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala tere ñoom ñëpp ñu tawasulee ci seeni jëf ahlu sunna dàquñ bu njëkk bi ma wax dàquñ bi itam mu am beneen xeeti tawassul mooy a tawassulu bi duaai rajulin saalih nga gis nit koo xam ne ku baax la wala njorto nga ci moom baax mu ñaanal la borom bi tabaaraka wa taala comme yonent bi li mu wax ci euh, waysil qarani ne man laqiyahu minkum falyastaghfir lah ku ci dajeeg mom ñaan ko mu jégalul la sa borom tabaraka wa taala ni ki saxaaba yi niñ daan demee ci yonente bi alayhi salatu wassalam diko ñaan lo yalla subhanahu wa taala ci seen soxla kon ñetti xeeti tawassul gi ni yo xam ne amna ay dalil ci alquran ak ci sunna yonente bi alayhi salatu wassalam te ñi ngay woyé alwahabiya ñom dàquñu anda ak ne tur wi yéen na leen ko tuddee waaye ñom tuddee ko seen bop ñom ñu ngi askane seen bop sunna ak manhajus salaf muy la nga xamne magña sa lañ nekkon ci degginu alquran wala ci degg alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wassalam kon ñom tawasul bi ñuy dàq mooy bi jaay fulan bi darajati fulan bi hurmati fulan ak yu ken xamul yoya nga xam ne ki nga jàpp yow ne kii ku màgg la ba tax ngay ñaanee yàlla ci darajaam yàlla yàgg nay maye lu ëpp li nga koy ñaan yow te booba fulaan ak allaan kenn si ñoom nekku fa ñëw ñu ngay tudd kenn nekkut fa si ñoom te it ñoom daañ fi jógee suñ borom di continuer di maye lu ëpp li nga soxla yow di ko ñaan nii te ñoom nekkuñ fi kon borom bi tabaraka wa taala booy def tawasul si moom seetal yi mu la jox ndigal ci alquran ak sunna nga defee ko tawasul waaye bul fent ay bidaa ba pare di ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala kon kay ñoom dañuy dàq tawassul bu mel noonu ñoom ahlu sunnati wal jamaa ñi ngay tuddee alwahabiya ñoom dañuy dàq tawassul bu mel noonu waaye am nañ si ay dalil yoo xam ne yu leer naññi la ci alquran ak ci sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba tey mu wax ci ñoom lu reelu loo xam ne xale yu ndaw yi sax euh, buñ ko déggee dana leen defi nee na wahaabiya dañoo daanu tayib léegi ana màndarga daanu bi mu ne ndax wahaabiya arabi saudi ñoo ko amee woon waaye seen buur ba dafa xëy ne adduna bi yépp a ngi gàmmo ñun yonent fii la juddoo ñu moom ko ba noppi nit ñi di ko defal gàmmo ñun ñu bañ ne duñ ko defal gàmmo daa di joxe décret léegi ne na ñëpp gàmmoo boroom xam-xam bu ko weddi na nga ñëw fii maag yow la allahu akbar mbokk yi lii day reeloo xale ndax yi ci nekk ci ay mafasid awalan law farat naa ne buuru Arabie Saoudite moo wax loolu ndax buuru Arabie Saoudite ñoom ñoom ñoom ñoo moom diina est-ce que buuru Arabie Saoudite moom bu waxee dara ci diina nit ñi dañ ko cay topp su fekkee gisaluñ loola dalil ci alquran wala ci yonent sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ahli sunna wal jamaa seen diina teguñu ko ci loosu kenn qaala allahu la ñuy déglu قال رسول صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان نيوم سين دينا لتي دغلو مو يالا نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا ولا صحابة نينا كيب كو واخ لو اوتي اك لو واخ يالا ولا واخ يونتبي عليه الصلاة والسلام دنج لاي دوغال نغانت بودي داغا رير نيوم ني توب القران اك سنة بنين بي موي ban bour ci bour Arabie Saoudi mo wax lol ak fan lañu gamo ci bir Arabie Saoudi fan la yalla def na ren euh, bi nga xamé né comme niko suñ ben cheikh di waxee xafidahullahu wa raahu picci mu laké bop <laughs> picci mu laké bop la ndax euh, seen mebet yeb moy ne Arabie Saoudi def gamo makka nañ fa gamo Madina nañ fa gamo waye ren ji rek laay joxe misaal waxuma sax at yi ren jii nga xam ne dañ ko doon siiwal yàlla def ay nit yoo xam ne ñu nga foofa ñee di jàng foofa ñee di dem fa di def umra ñu daa di vidéo li nga xam ne mooy masjidu nabi sallallahu alayhi wa sallam yëpp ñu def fa ay barrière di aaye ne kenn bu mu dugg naan damay euh, wax lii wala damay wax laa ànd loolu nit di toog fii di wax ne buuru Arabie Saoudite dafa joxe benn décret ne nañ màggal yonent bi sallallahu alayhi wa fu ñu ko doon màggalee de waaye du Makka ak Madina moom Makka ak Madina Arabie Saoudite benn gàmmu nekkut Arabie Saoudite te it nag li ñuy wax te duñ dañ di ko wax mooy Arabie Saoudite buñ doon gàmmoo it du tee gàmmo yore atte bam yoroon mooy ne gàmmo bidaa la amul dalil ci alquran amul dalil ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu ko Arabie Saoudite defoon du tee mu nekk bidaa comme ni ma leen wax ahlu sunna wal jamaa du Arabie Saoudite la ñuy toppandoo du réew sangam la ñuy toppandoo du réew sàngam la ñuy toppandoo déedéet ahlu sunna wal jamaa alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la ñuy topp saa bu leen dëgg leeree rek ak fu mën a nekk ak réew mu ko mën a amee ñu ko mën a wax rek subaa dañuy topp dëgg googa kon euh, loolu moom itam lu reelu la te doy waar lool euh, amma li mu layalee tawassul ci anam gi nga xam ne moom la koy waxee moom euh, mu layee xadisu tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allaahi azim foofu ñaari wax lañ fay wax nee na foofu albaani dafa ne xadis bi dafa daif فاو جو قمني يونت بي عليه الصلاة والسلام كن سيك ساكو تي درجام كو أم درجة لا في الله درجة جو كوي كوي كوي كوي لا يونت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام أمي وكيف لا لو تعمير دمي نونو تي يونت بي عليه الصلاة والسلام موي بروم لواء الحمد drapeau yi cant ba moy borom maqamul mahmud moy sayyidu waladi adam moy sangu mbollem dom adama alayhi salatu wassalam mom lañi ñeek ubil buntu aljana ëlëk yowm qiyamah mo yoré ashafaatul kubra mom lako borom bi tabaraka wa taala di jox muy shafaa gu magga kon yonent bi sallallahu alayhi wa borom dara ju màgg la ju reey la bokolé rek yàlla wax na ci yontu yàlla Moussa ne wa kaana inda allahi wajiha yontu yàlla Moussa am daraja la fa yàlla te xam nañ ne yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo gën mboolem yonent yi kon loolu sikki sàkka nekku ci loolu nag mbir la ñaanee yàlla ci darajaam wala tawasulee ci darajaam loolu beneen mbir la ñaar yi nag ba ñoo bokkut ndax pour nga mën ñaane yàlla ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla mabnaha ala tawqif jaamu yàlla kenn sañu ko fent te amul ci ndigal kenn sañu def fent jaamu yàlla wala mu di ko def lu dul mu am ci ndigal goo xam ne dafa jóge ci yàlla wala mu jóge ci ab yonentam te ñëwut jóge ci yàlla walla mu jóge ci ab yonentam ne nañ di ñaane yàlla ci darajey yonent bi wala ci darajey fulaan wala darajey fulaan déedéet amma xadisu tawassalu bi jaayi fa inna jaay inda allahi azim xadis la boo xam ne amut aslu mbokk yi nee na albani moo daifal xadis bi xadis dafa amut asl sax ba albani di ko da du albani rek moo ko daifal de xadis bi boroom xam-xamu xadis yi jiitu nañ cheikh albani daifal ko dellul ci alqaidatu aljalila fi tawassuli walwasila bu ibnu taymiya rahimahullahu taala wala nga dellu ci yeneen borom xam-xam lu mel ni asaalimul munki bu ibnu abdilhaadi ak ñeneen da nga fekk ne xadis bi ay nit daifal nañ ko ay ay ay téeméeri téeméeri téeméeri ak lu jiitu albani di ñëw xadis bi dafa amut asla buñ ne xadis bi amut asla nag mooy lan mooy xadis boo xam ne doo ko fekk ci téere xadis yi nga fekk ci téere xadis yi ñu màngal ko ab sanat ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nàngam déedéet mooy xadis bu amut as la xadis bii nag mu ngi bokk ci xadis yi nga xam ne moom xamut as la kon euh, xadis boobu wax dëgg yàlla nag euh, ku mel ni moom waroon na euh, diis lu lool te rëylu mu di ko def dalil di ko layalee di ko layee ci masala moo xam ne masala mu mu rëy rëy rëy rëy la mu di ci def lay euh, xadis boo xam ne amut as la nag amut benn as la euh, am na beneen xadis bu mu tudd it mooy xadisu laa tansa laa tansani min duaayika yaa uxayya wala yaa axi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amar ibn al-Xataab radiyallahu anhu da koo tàggu ne day dem umra mu ne ko boo demee bu ma fàtte ci sag ñaan awalan xadis boobu liñ ci wax mooy moom it xadis la boo xam ne wérut su fekkoon ne wér na it loolu du lay ci béréb bii ndax dafa bokk ci xeeti tawasul yi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa nangu nañ ko mooy tawasul ci ñaan nit wax nit ne ko ñaanal ma ci soxla nangam ana loolu ak bi jaayi diw bi jaayi diw bi jaayi diw loolu jotee wuñ dara saxaaba yi dañ daan dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanloo yàlla yonent bi wax na ci Uwaysul Qarani man laqiyahu minkum falyastaghfir lahu ku si dajeegi yéen ci moom na ko jégalul yàlla subhaanahu wa taala kon wax nit mu ñaanal la loolu amul wala boog man xawma kuy wax ne loolu daganut kon loolu dara nekku ci ñun li ñuy wax mooy bi jaay fulaan ak bi jaay fulaan kon li njëkk si xadis boobu mooy xadis bi wérut benn ñaareel bi même su wéroon lim ciy daliloo loola euh, ahlu sunna wal jamaa ñoom dàquñ loolu ñi muy tuddee alwahabiya ñoom dàquñ loolu jàpp nañ ne loolu lu mën a nekk euh, nag ne kenn mooy Albani Albani orloose la woon Albani jàngut ci école Albani génnewut ci benn université ak wax yu mel noonu liñ ciy tontu rek mooy Cheikh Albani rahimahullahu taala borom xam-xam yim jamono wante woon ci àdduna bi ñoom de neetar nañ xam-xamam nangu nañ ab xam-xamam rawatina ci fànn gii di fànnu xadiis ñam tombeetoon jamono ci giw bii di giwub xadiis ñoom ñëpp simmi nañ seen mbaxana teg ko ci suuf nangul ko ne daraja jim yéeg njombaxtoon gi yéeg ci xam-xamu xadiis كن يكون جم بختنو لسي جمانهم شيخ عبد ابن باز رحمه الله تعالى وخنا تي ما تحت اديم السماء رجل ولا لا اعرف لا اعلم تحت اديم السماء رجلا اعلم بالحديث من الشيخ الالباني نينا رون اسمان سي قوم في كو قمن قم شيخ الالباني قم قم حديث لما نون ابن عثيمين سيدل نكوكو lu mel noonu keneen ak keneen ak keneen ci boroom xam-xam yi seedeel nañ ko ko kon wax ko ne moom orloose la woon wàññiwu ko dara ndax ñun suñu diina lim ñu jàngal mooy ñu liggéey dundee ko ñu bañ a sukkandiku ci addiye yi ak di bayloo nit ñi tool ak di defar ay daayira ak di nax nit ñi ci turu diina ci xulli ay bët walla ci réyal ay kaala walla ci réyal ay mbaxana walla ci suma maam nangam walla ci santu wi nangam wala ci tariqa bi nangam loolu suñ diina daf ñu ko tere kon Cheikh Albani da am ataleem amee micceem su fàggoo warsagam lu mu mën a lekk mu daa dina bitik ba daa dem jàngale ji daa dem daawa ji daa di dem liiri téere gëstu ji xam-xam rahimahullahu taala te boo demee ci kutubu salaf kutubu taraajimi boo fa demee kutubu xadiisi nga fekk kële ñu koy wooye albazaz nga xam ne amoon na métier kon kële ñu koy wooye an najjaar nga xam ne amoon na métier kenn ñu koy wooye nangam kenn kenn ku nekk si ñoom dafa amoon liggéey bu muy liggéey ngir lan boo amul liggéey doo mën a sàmm sa ngor ñi fi nekk ñëpp di naxaate ci turu diina di naxaate ci diggi aljana di naxaate ci aw santak yëpp dara yóbbuwul leen ko lu mooy dañoo ñàkki métier amuñu dara lu ñu def moo tax ñuy toog di nax nit ñi di dem Cheikh Albani nag moom jàngoon na li yonent bi sallallahu wax ne kenn si yéen jël buumam dem si àll bi taxani aw sëyu matt ñëw jaay ko faj ci soxlaam fajal si njabootam soxlaam moo gën muy topp nit ñi di leen laaj te laaj bi gën a yées mooy di laaj ci turu diina kon dëgg la Cheikh Albani orloose la woon daan na mënoon na defar montor te xamoon ko bu baax a baax a baax waaye loola métier la woon ci métier yi amaa jàng nag mu ko def bam nekkee xale Cheikh Albani baayam mufti la woon ci ngiru imaam Abu Hanifa baayam ji nga xam ne mooy nuux mufti la woon ci ngiru imaam Abu Hanifa mu jàng ci baayam ba jeexal téere yu bare baree bari rawatina ci ngiru imaam Abu Hanifa rahimahullahu taala ba baayam nangul ko sax ne kii ku xam madhab bi la léegi ku xam fiq la baayam ji ko jur nangul ko loolu kuy wax na si Albani dugut école xaa ko xamut waaye kay waa suuriye ñoom ñoom ña xam sa madarasa ba mu doon jàngee ñoom duñ wax ne moom dugut école ñoom xam nañ lool mu dugg école jàng dajeeg ay boromi xam-xam yoo xam ne kuy lañ ñooñu defal ko ay ijaazaat yu bari nangul ko xam-xamam muy daan toog ak ñoom ku mel ni Cheikh Raghib Tabbaax ak ñeneen ñoo xam ne ay boromi xam-xam yu mag lañ mu daan toog ak ñoom di jànge ci ñoom. kooku kuy wax ne jàngut ku jàngut dina dugg ci université yi ñaam moom ñàkk jàngam boobu kon du problème fekk ñàkk a jàng boo xam ne da ngaa ñàkk a jàng ba noppi nga dem ca université ya di jàngal ay ndongo yoo xam ne ndongo yi njàng mu kowe la ñuy jàng yow mi ñu ne yow yaay jàngal ndongo yooyu ba noppi ñuy wax ne yow jàngaloo ana noom nu mu def kon ba mën a jàngal ndongo yooyu nga xam ne njàng mu kowe la ñuy jàng ñii doctorat la ñuy def ñële magistère la ñuy def ñële di def seen licence nu mu leen di jàngalee kon dama defee ne Cheikh Albani nit lu mu ko bañ bañ bañ bañ bañ dana ko waxal leneen lu mooy ne Cheikh Albani jàngut wala Cheikh Albani Cheikh amul xam-xam bu taam ne ñu fi ñu fi ndamoo di leen tiitaroo di wax ne ñoom kat euh, mosuñoo dem fenn waaye teewut ñoom ñoo fi raw ah, waaw. léegi lu tax ñu koy bañal albahani moom moom mi nga xam ne dem na na moom jàng na fu jàng na bu baax a baax a baax boroomi xam-xami àdduna bi seedal nañ ko même ñi nga xam ne waa tasawuf lañ même ñi nga xam ne waa tasawuf lañ ñu baree baree baree bare si ñoom seedal nañ ko ab xam-xamam ci tool bii nga xam ne moom mooy toolu xadis kon nag euh, la a waxoon rek هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم kon bu ñu yeboo rek ne wax jooju nga xam ne moom lañ koy wax buñ sa jubloo tuutal ko it moom incha allahu tabaraka wa taala duul koo xam ne manes na koo tuutal ci yu mel nii ndax ba ilaa yawmi diini sa yabqa ismu cheikh al albani fi butuni al kutub saxahahu al albani da'afahu al-albani ba ila da fay des ci téré yi insha allah taala ñu diko jang kon kon euh, méngale len wax yi mbokk yi ak wax ja nga xamne señ bi mu ko doon wax nan ki qutbula ki kii ki nuqabaula ki nujabaula mu ne ñep ay tur yu ñu créé la way albani ne na si xadis yi wéruñ waaw ñu laaj ko ne ko ndax albani dembu bam ne xadiis yi wéruñ yow nga ne xadiis yi wéruñ danga koo xamu doon wala danga koo xam tey walla dafa am leneen loo xam ne moom moo aju ci mbir mi te it tontu bi jawaab ji mooy dafa am lu aju ci mbir mi euh, li may tëjee nag mbokk yi mooy li mu ne euh, saoudiens yi dañoo mujj bind ab téere ci albani daal di ko tuddee tanaqudaatu Albani subhanallah tanaqudatu Albani ab téere la bo xamne euh nit ku soxor te añaan moko bind ñu koy wax xasadi saqaf bi koku du saudiya de <laughs> koku du wa saudiya koku wa urdun la wa urdun la du Saoudiya de que xam nga loolu Saoudiya kay seeni téere ci Cheikh Albani mooy téere leeral manhajam tasaare njàngaleem wax ci moom lu baax ndax nag mooy dawlatu tawxiid mooy réew mi nga xam ne alhamdulillah mooy ma islaamil awwal waaw kon euh, yu mel noona walilaahi alhamdu du doon seen jikko kon na nga xàmmee ñi bind ci Cheikh Albani euh, tuddee ko tanaqudaat ak waa Saoudia ñooñu duwuñ waa Saoudia kon na nga fexe nga euh, liiraat tur woowu bu baax a baax gën koo jekkal <laughs> gën koo rafetal beneen bi téere boobu di tanaaqudatul albaani kooka loola mu tuddee tanaaqut maanaam ak soxor la ak ndof ndax loola benn boroom xam-xam boo xam ne ku dagg am lef mu sori la ci xadiis loola muccut sa mooy ab xadiis nga tasxiix ko fii nga dem ba mu yàgg nga gis ay sanad yoo xam ne gisuloo ko woon wala am yu sa feeñ yoo xam ne feeñu doon kera bi nga koy tasxiix nga mujj tadifal ko wala nga tadifal ab xadiis nga dem ba mu yàgg nga gisal ko ci ay shawaahid yoo xam ne xadis ba daf cee yéegee ba yegg ci darajatul xasan nga mujj taxsin ko loolu day dal ibnu xajar al asqalaani bari na ko te moom léegi-léeg sax si benn téeréem bi di fathul baari nga fekk mu tasxiifa ab xadis ba yàgg mu tadifal ko ndax dafay tax ñu ñëw bind ne tanaqudaati ibnu xajar kadalika alimaamu nawawi rahimahullah loolu dakoy koy dal rawatina si téeréem bii di almajmuu est-ce que loolu day tax ñu ñëw daal di bind ne tanaqudaati alimaami nawawi imaam nawawi tanaqudaatam yaa ngi nii boroom xam-xam yi naka jekk dafa bokk ci seeni màndarga mooy saa yu dëgg feeñee ci seen kanam dañuy bàyyi lañ jàppoon foogoon ne mooy dëgg jàpp ci li nga xam ne ni moom mooy dëgg loolu nag nit ku ndaw manu ko loolu nit ku rëy moo ko man nit ku rëy tey seet digganteem ak boromam tabaraka wa taala da ngaa wéri loon ab xadis nga dem ba mu yàgg nga gisa ko illa bu war a tax nga tadif ko nga xool sa digganteeg yàlla nga de delluwaat naa gannaaw ci tasxi bii ma tasxi woon xadis bi xadis bi ndeke daif la wala nga daifaloon xadis nga dem bam yàgg gisal ko ci ay shawahid lu war a tax nga taxsin ko wala nga tasxi ko nga daal di ko def ba noppi doo ci faale ku la yedd walla ku la xas wala ku la tuutal doo ko ci faale sa digganteek sa borom tabaraka wa taala rek mooy li nga xam ne moom nga xool kon nag mbokk yi ay eh, tomb rek la woon yoo xam ne dañ ko jukki ci vidéo bi ala ujaala di ñaan suñ borom tabaraka wa mu musal ñu euh, ci alxawr baada alkawr comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan musloo mooy ñu gis la ngay wax lii tey naan nii yàlla nee na yonent bi nee na nga dem bam yàgg nga dëpp la nga doon wax ne yàlla nee na yonent bi nee na nga daal di dëpp euh, commencé di ca xapp suuf ak di ko wéradil at di ca dellu gannaaw yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala musal ci lool te saxal ñu ci siratul mustaqim ba keroog ñu dajeeg moom wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh